war nga koo sant gërëm parce que yombul ñu wax que ne bu ñu waxee niim bi association niim bi yow yaa ngi ci biir parce que doomu koñ bi nga doomu gox bi nga et ngay def loo xam ne dafa méngoog li niim gi di def muy social bi nga xam ne niim gi bu mu juddoo ba léegi ci la nekk presque 15 mois ñu ngi ci loolu di wax ko ne xale yi bi ñu la invité tamit mënoon nga tàng xam lu parce que yitte yi bari na mais nag yàlla dogal na nga bàyyi say yitte ñëw jàpp ci jàppoon ci avant japon ci tay tamit ci bis bi parce que teway yombul fi mu ci jamono ji di wax que ne niim gi ak wa mboro yi dafa am relation yu deuguer yu nek sen diggante mais au delà de football bi côté sport bi dafa am côté économique bo xam dañ ko cee bëgg a di wax que ne dañoo toll ci phase bo xam ne sport kese doy mais da nga sport bo la ko jang ba pare di lijeenti sen diggante nan lay demee mën a am ay ay kom kom association ay kom kom mo koy doxal te ñom war nañu toll fo xamne lu ñu bëgg di dem tàllal lo tàllal nit loxo maanaam ay jeune lañ ay xale lañ am nañ xel am nañ xalaat kon war nañoo mën a liggéeyal seen bopp ci projet boobu lañ nekk ñu nas ko ànd ko bàyyi nga mu am ay xalaat nag yu bëri ñu ne mboor dëkk mbay la dëkk napp la te ñun ñoo dëkk ci banlieue boo xam ne presque ci à zéro mètre ñu xam ne mën nañoo liggéey ak noonu projet ci débat boobu nga ñu fekkoon mais bu weesoo loolu ñun kilifa yi maanaam ñu ngi jiit bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu lay ñaan aussi sa mébét bi nga bëgg yàlla na ko yàlla sottal di wax que ne kii ngeen jaakaar loolu bëri na situation yoo xam ne bu leen dabee ñu mel nii dootuñu jaar sax fi ñu nekkoon